sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey. ñu jëwriñ ci sëriñ Ibrahima Dieng ak waa kuréel bi ak mbooleem waa kuréel bi ñëpp ñu ngi ñu tey ziar tey dalal suñu sëriñ Amar ñu ngi ci léegi di muy waa Touba Toul di wax rek alhamdulilahi rabbil alamin xam naa suñ moo xam li ko waxee ci liggéey bi fi nga xam ne fi la toll man bi ma gis kuréel yi dama dama santaat suñu borom tabaraka wa taala bu baax xam ne ku ab yokk am na ah, man nay dem di nag ba doon ay kuréel kuréel loolu la ñuy di wax rek di sos fi nga xam ne fi nga waxee maanaam ñun ñi nga xam ne ñu ñooy waa Lambaye boroom dañoo jox ay référence jox ñu ñoo xam ne tamit euh, bu fekkan ne lii ñu nekk bâtiment la ñu man ne ñoom ñooy fondement te bâtiment fondement bi bu fekkee ne dëgër na jaar yoon la ca des moom daanaka duutu jafee suñu borom bi moo defal mag ñu baax ñoo xam ne ba sëriñ bi wootee kenn jiitu leen ci ñuy Cheikh Babacar Thiergane sëriñ Aliou Diouf sëriñ Momar Maane ba ci sëriñ Mor Awa sax ak sëriñ Baba Ndiaye ñoom ñépp di mag ñu baax ñoo xam ne ñu kenn jiitu leen ci sëriñ bi loolu nag ku ko defal maanaam bul xool kenn ci yoonu sëñ bi ba jàpp ne war na cee am loo amul ñun ba ñëpp di am lañ am ba ñëpp di am lu baax booba lañ am lu baax kenn ëpp léewuñ ci sëñ bi moo tax ni ma ko waxee woon rek daayira bi bi mu yëkkati koo jóg wax dëgg am naa ci njort lu rafet lool ak gëm ne luy wëy la luy jëm kanam la ndax maanaam dafa doon loo xam ne lu rafet la rafetaay boo xam ne kenn amut loo ci mën ndax bu fekkee da ngaa tàllal sa loxo daal ne damay sos daayira boo xam ne mboolem sama askan bi ñëpp laa ci woo bàyyiwuma kenn daanaka loolu boo ko xasee wax rek kon ñëpp bokk na kan moo ci bokk ku ne man bokk bokkagum ku ci génne bokk boppam daal moo ci bokkul waaye fimu ne ñëpp a ngi ci biir ndax suñ borom dañoo defal tawfeex yoo xam ne ñun suñ gox bee ñëpp sëriñ bi lañ yaakaar loolu lu may faral di wax la ci sant suñ borom lu jafee jafe ne ci gox boo xam ne fépp dëkk boo joxal foo dem rek yow de dangay ngay mën a dogu ne ñii ci waa kër Sëriñ Tuubaa loolu nag ci liggéey mag ñu baax na la ak gaa baax na sunu mag ñoo ñëwee waaw loolu nag war noo gën a yokk nag pëstéef bu baax a baax ndax mësuñoo des ginnaaw boo buñ demee ci téere boobu nga xam ne moom la docteur Alxaaji Jaay bind ñu ngi ko wax Cheikh Babacar Thiergane minanu rahimi nga xam ne na daa yóbboo addiya at mu am at moo xam ne nag dafa bekkoor lool ah, ah tool yi nanguwul léegi nag mu tànn ay góor ci taalibe yi yëbal leen Dakar ci usine bu wax Molel Xorom fekkee lu moo ci waxee ni benn tubaab bu neen foofu fii boo xam dafa yoroon usine bu mag ne leen ne tubaab ba wala naar ba ñii de sama njaboot la ñoo xam ne nii dama leen fee indi ngir tayle leen tayle maanaam ba mu fi yóbbu yóbbu leen ngir ñu liggéey fayeku waaye da leen a tayle ngir mu jox mu jox mu yëkkati ak dund bu baree baree bari jox nu ko jox ko ko ngir ñu liggéey ak diir boo xam ne nii waxante nañ léegi ba mu leen fa bàyyee ñuy liggéey maanaam borom société boobu jox ko ci ab dund loo xam ne nii war naa ma ñetti wago defe naa ni ma ko bàyyi ba desee nettalee wut ci nga koy saxaar daal wala boo ko përie wala bari nga teg ko ci saxaar gi boobu diggante Dakar uh, ba njaareem saxaar gi moo fi te li amagu fi ñu indi ko ba Bambey mag ñi di ko jukki di ko teg ci ay mbaam di ko sëf di ko indi at moomee ci lañ loolu moo doon a dundab waa gox ba ci lañ yóbbu tamit addiyee yi nga xam ne nii moom lañ yóbbu Cheikhul Khadim am benn majalla bu ñu defoon ci màggal Cheikh Babacar Thiergane mooy ku xam ne dañ ci doon bind boobu man maa ko seqan ak docteur Xaadim Diouf ak euh, bi nga xam ne moo nekk ci docteur Khadim Silla bi ñëwee ci wàllam bi ñëwee dane ñi nga xam ne ñoo njëkk a def immigré ñu njëkk leen a xame immigré ci Sénégal mooy lambaay lambaay yi te immigré boobu ñu def sëriñ moo leen ko santan moo leen ko digalan ne leen dem leen ba Dakar ngeen liggéey andilu askan wi dunde ñu yóbbu ci àddina mais foofu la Sénégal xame immigré ku fi xam i liggéey ci foofu nga ko jàng kon liggéey ak jaamu yàlla loolu lan sunu mag ñi yare moom lan nu toqee ba sax loolu danoo topp ndax fi ne booy gis pàkk yi ngay gis ñuy wax pàkku foofu la sosoo foofu la tàmbali ndeysaan jamono jeenee dafa am di màggal ak suñu sàmba ji na daam wër di laajal màggal ak suñu sàmba lu ba toll fi ñun nuyoo taalibe yi di joxe at yi am benn mm, client boo xam ne xam naa jaaxal na daal taxaw ni ma wax mais kii lu muy encaissé ni ma ne ko ah ci day maanaam moom la maamam sos béréb bii nga xam ne nii moom lañuy ñuy liggéey maanaam béréb bii ñu liggéeyee maamam moo ñu si indi ñu di ñu di si daan suñu daal di si moo la ko fàggul mu ne ah leer ma ne bu ko tontoon leneen lu dul loolu moom laa dem moom moom laa di nga loolu waaye nit moom bu fekkee àdduna rek la gis maanaam boo koy tontu da koy tontu ci xamal ko loo xam ne nii luy jagal àdduna la bu ko defee mu doo a d'accord waaye boo ko tontoon leneen loo xam ne nii xëy naa kii du ko mën a comprendre waaw boo ko noonu kii day kilifa diine la jéem foofu mën naa di nag waaye da koy tontu fa xelam waaye war nañoo sant bu baax a baax dem ba ci kilifa gi nga xam ne nii mooy borom kër gi mooy suñu Sidi Diouf di suñu maam way juri suñ suñ Ibrahima Diouf doon ko aman taxawaay bu mag ci Lambaye bu rëy a boo xam ne man ñu seere nañu liggéeyal sëriñ bi lu baree baree bari ay jamonoom da daa bay ay tool ay tool àllarba yoo xam ne nii da ci daa woo mbooleem ñi nga xam ne nii ajoon nañ ci moom ak waa tund woowu ñu di bay at mu jot mu sëf ko ci ay sëfuwaay lu mel ni ay fas ak i baam ak lépp yëpp yëpp ko suñ fàll ba nga xam ne nii demal na ba am ci moom makaana bu kawee kawee kawe gannaaw daara jooju ngay gis tey jii kër suñ fàll lu ko maanaam euh, yàgg nag faare mu yàgg fa lool am fa ay ati ati at waaye lam ci yéeneen gis nga am na ko naka noonu amoon na magan bi daa wax si mujjif jéey kooku tamit mag ñettil na ma ni ma ca jamono yi ya doy waar jamono yi cedd ga ku jublu woon xam ne nii maanaam moom jàkkaam daana dem ba toll foo xam ne moom rek moo fay ne bu ñuy sabaroo lépp lu ñuy def moom moom ci loolu lañ ko xam même mag nettil na ma tamit ci tudd mënoon na maa tudd tur waaye du ma ko na ma sëriñ Sidi Diouf moomu tolloon na ci yar ak njabootam foo xam ne nii mais toll nay jamono béréb boobu yéen kenn ñu néew faa dugg wala nga fekk tolloon na ci foofu. tolloon na jamono yoo xam ne tamit am na comment nettali ne béréb yi ko wër yëpp muy dëkkee gox yi ku masaa bëgg a bindu dara wala ngay jànglu ab leetar daanaka foofu nga koy jàng si mu doon kon koo xam ne nii ku masa itti woo lislaam la mu ku ci masa ci masa fis am na sunu way jur woo xam ne ma nga ca dëkk ba nee nañu sa taalab taalab sa maam joojee de si siidi Juuf de boo masaa toll béréb sàngam guddi ngay seen jëneer ba kon foofu alxuraan yàgg na kon siñ moor loolu ngay wax naan daayira bii nii waatu bi ñu cëpp la loolu kon xëy na ak ndoneel la boo xam ne dañ koo jële ci kilifa yooyu kon li may faral di wax rek mag ñi moom ñun waa Lambaay moom xëy na dangay faral di dégg sax boo nee ci beneen béréb boo xam ne bu xaw sori la bu nee làmbaay mu xaw leen a jaaxal ndax loolu sëñ Moussa Ka doon waxan naan ah, fépp mel ni làmbaay foofu ma tàmbaliwaay ay bayit ba xëy na loolu jaaxalan na leen dëgg la làmbaay li war a lan loolu dafa doonan béréb boo xam ne saxuwaayëpp buur yi la woon maanaam capital mënoon nañ ne teeñ buur bi ñuy wax teeñ buur yi ñuy wax teeñ lambaay moo dooneen seen capital nga xam ne sosuwaay ak lambaay sax jëmmi teeñ moo ko sos nga xam ne euh, ba nga xamee ne euh, fàkke nañ ci buurub Kajoor ñëw ngir sos seen ak nguur ca lan dox a dox ci tegtal ba ñëw sos lambaay boobu noonu kon loolu mooy jëmmi lambaay ñooñee fa neen nag di buur ya daan faru maanaam ñoo doonal ñu doy waar a ak seeni dag di xeex lislaam rawatina ci jamonoy sëriñ bi bi nga xamee ni tubaab yi yónnee leen xam ne ne maanaam képp ku nekk ci béréb ña fa doon ñu topp sëriñ bi na nga leen teqale te fexe leen a tàggaleeg sëriñ bi moo waraloon taxawaay boobu nga jégg Cheikh Babacar Thiabgal Sëriñ Mor Maane Sëriñ Aliou Diouf muy taxawaay bu am solo boobu nga xam ne foofu la nguur ak teeñ sax far doxe jeex loolu ma di ko niroo léeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne ñëw na fekk na sawara woo xam ne tàkk na lu junni at woo xam ne aw nit dañ ko daa jaamu naka noonu fekk na fi ndox moo xam ne ak dex la gun daa jaamu ëpp na junni at waaye ba ñëwee ca ndox ma far ba mel ni béréb booba sawara fa ne bérébu ndox ma tamit bérébu sawara tamit noonu la demee xar ba mel ni am ndox a fa ne foofu ko gëj a sëriñ bi tamit teeñ yàgg naa doon nante ci bawol waaye bi mu ñëwee ba ne tas naa jal ba foofa la teeñ yéen li ñuy wax chef de canton xanaa moo fi amaat ginnaaw bi waaye bareetu loolu lépp di liggéey man ñi nga xam ne nii mooy suñu man ñi nga xam ne ñoom ñoo toppal cheikh si si siñ bi xal nu yoon bi xamal nu yoon bi ba def fa loo xam ne nii amul fenn man damay faral di daje ñeneen ñoo xam ne ñu bokk feneen lan ak ci yeneen dox lu ci baree bari bu ma fa dajee ñoom moom daanaka damay bàyyi ak la tudd dama leen di ma dama leen woon sama bopp bu baax a baax a baax xamal leen ne ñun kenn du ñun jamono jii li ñu war a wax fépp mel ni làmbaay bu ñu ko waree bu ñu ko waxee mooy ci roy leen ci taalibe loolu la war a wax kon fépp mel ni làmbaaj ca jamono yi jëkk waaye jamono ji fu mu ne fépp mel ni làmbaaj ci taali bi lañ leen la ndax man ña fa ne liggéey nañ fa def nañ fa lu rëy loo xam ne lu am solo la loo xam ne nii ku fa ñëw xam ne fii sëriñ bi maanaam fàggu téefam moo fi ne fàggu téefam moo fi ne loolu kon moo sunu doxin wii nii nii war naa gën a doon ak soññ ci ñun ban gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax xam ne lii ñuy def nii doonu fi gan mook yoonu murit ñoo sosoondoo làmbaay seen ak murit mook yoonu murit ñoo mooy ca Mbàkke Kajoor bu jëkk bariwaan a kàngam moo fi dégg di ko yéem di ko naw tey jii ginnaaw bi sëñ bi demee ci na lu ne waaye sunu mag ñooñee moo tax am na xasida bu ma ci defoon Cheikh Babacar wolof manaa was saabixuuna Babacar Siddiqu al awwaluuna Babacar Siddiq li ma jublu mooy as-saabiquuna al-awwal wa as-saabiquuna al-awwaluuna min al-muhaajiriina wal ansaar boobu doo yàlla wax ci alquran kon bu ñuy wax as-saabiquuna ci ñi nga xam ne nii dañoo topp sëriñ bi maanaam suñu mag ñeeg ca la tàmbalee ndax ñoom kenn jiitu leen kon nag ñun am nañ ay royuwaay yu mat sib yoo xam ne nii maanaam buñ ci royee du ñu jëggaani fenn lu ñuy roy ñu gën a góorgóorlu baax a baax gën a jàpp ci xasida yi baax a baax su kenn kàttan lépp loo xam ne nii maanaam man nañ ko ci ñu def a def te bu ñu yem rek ci jàng xasida yi rek nañ wut tamit ay jàngukaay ay daara yoo xam ne da ba jàngukaay bu ñuy sos fii ci Dakar boo xam ne day tënku ci daayira bi nga xam ne dañ naan lii mooy daaraay safinatul amaan ji nekk ci Dakar te te loolu sax ñu ngi ciy dox te insha allah taala gëm nañ ne dinañ ci am ndam insha allah taala kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp.